xam nga li may faral di wax loolu rek mooy président Macky Sall toujours damay wax ne considération politique ñi fi liggéey ci politique loolu mooy li des. boo xoolee ci jamonoy Senghor boo xoolee ci jamonoy Abdou Diouf ba ci jamonoy Abdoulaye Wade benn renouvellement maam a am. ci jëluñu doomi Mbàkke def ko mu nekk ministre département Mbàkke def ko mu nekk ministre wala directeur kon euh, foofu nag jekk ay poste koy lan daan am waaye ci jamono sama xarit président Macky Sall mën na noo wax ne ci la loolu tàmbalee am ci loolu man pour man euh, ñàkk considération ci wàllu politique la ndax dem na ci ba nga xam ne euh, considé bii di am nga xam ne mooy nu ñu koy tuddite kii di kii di politique bureau politique bii am Euh, ñaare euh, nga xam ne dañ koy seq di ci faral di waxtaan tey boo demee euh, amut sax bureau du politique exécutif bi am toujours euh, ci euh, palais ñu koy réunion jël doomi ay gox ñu fay toog di wax seen politique foofu mën na noo wax ne Touba amul kenn ku leen fa représenté kenn représenté wu leen fa foofu loolu ci wàllu politique non ci ñun la ci ñun la ñun ñoo fa yóbbu suñu bopp li mën a wax kay mooy di ko dénoncé di ko wax nii kenn ku ñu fa représenté amut benn représentant lan fa amoon kooku nekkutul ci parti bi ci nekku avant muy génn nekk ci parti bi sax euh, nekkutoon ci dëkk bi kon baax na ci tey foofu ñu am ñu ñu fa mën a teewal ba nga xam ne politique gu président buñ génnee ñëw ci gox bi xool nan lañ ko war a mën a tasaare lu dem na nag ba ci kon tey luy indi loolu moo indi tey bu dee def post nomination euh, génne ci waa Mbàkke waa Mbàkke département Mbàkke kon loolu li koy indi ci pour pourtant ay cadre ngi fi bis bu set mu lim ko duma ci dellu di ko limaat ah, parce que li tax euh, mooy bis bu set ma lim ne ay cadre ngi fi yoo xam ne ni mérito nan euh, ñu am ay post yoo xam ne poste responsabilité pour ndaw ñu mën cee gis seen loolu nga wax ne ci ñun la mën na wax ne ñun boo xoolee ne fii ci dëkk bi ah maanaam victoire joxuñu ko président Macky Sall waaye jox nañ ko victoire ndax nan lañ ko joxee victoire mooy présidentielle yi mënoonoo jàpp ne 68 mo 8 68 euh, mille voix ku la ko jox ah yaakaar naa ni ci ab dëkk ñoo nekk quatrième ci ci département yi ñoo xam ne ñoo ëpp lu ñu wate kon jàpp naa ne loolee tey bokk na ci li ko def mu nekk président kooku nag war naa am lu méngool ci tey ci ci tey li may wax Eh, boo demee eh, fu mel ni Podor ñaati ministre nga fay fekk ah, boo demee tey lu mel ne Fatick ñaata ministre ak directeur nga fay fekk boo demee ba ci Thiès gi tey bi ma mujjee lim ci li nga xam ne xamagun naa ko ci lii nommé ci jamono yii ñu ngi nekk sept ba huit ah, yoo xam ne ay ministre ak directeur tey jii ci tey eh, boo demee ci mboolem li nga xam ne mooy li wër ay kafri ak faneen ak faneen ñi ngi def ay ministre ke tey soixante mille soixante huit mille voix yooyu boo ko xoolee ñu nekk quatorzième ci de quatorzième dem ci département yi kon ci mooy 45 ñaati département ñoo des yoo xam ne jiituñu leen kon loolu mën mënunoo waxu ne du ci ñun du ñun ñoo yóbbu ci suñu bopp euh, ci li nga xam ne euh, mooy conseil du politique boobu exécutif du politique yi bi am du ñun ñoo yóbbu suñu bopp ci biir gouvernement bi c'est président moo ko décidé mais nag am na wane gi laa la wax ne la bokk nañ ci ñun ci li nga xam ne ñun ñoo ko gañeel ba tax mu toog gañu ñu am victoire waa déggoo fi may nee naa la nangu na nan dañ ko fee gañee am na dëkk yuñ ko gagné ca tey am na ministre ca dama jàpp ne lañ taxoon gagné ko mooy post responsabilité yooyu mosu fi am ca <laughs> ki nag boo koy fetaloo wala nga di ko sàmmiloo da nga ko joxu yet wala nga jox ko ay bal <laughs> ay bal yooyu mosu fi am kon nan la ñu war a mën a gagné beneen bi ci des lenn ci mbokk yi xëy na ay xeex mën naa am parce que fii tamit day dëkk boo xam ne xëy na spécial la bu fekkee ne tey ay nit dañuy toog ci ay kilifa mën nañoo toog ci seen salle président ñëw ñu ni diw nañ ko jàppale ca fekk na am na ay mbokk yoo xam ne ni ñoom ci seen jëm bi guddeeg bëccëg ñu ngi ci terrain bi waxuñu jëm ci ñoom loolu it bokk nañ ci ñun it ñu bokk ci mbokk yooyee bokk ci taalibi yooyee kon gëm naa ni tey loolu it bokk na ci toujours li ñuy xeeñ parce que dama jàpp ne ñun bu ndey politique ci dëkk bi donc donc ay sëti sëñ Touba di jàppale président Macky Sall ñu bu président Macky Sall ñëwee ñun ci suñu jëm mi boppam dañ war a yëkkati taxawal ñu ah ñi kër suñuy mbokk la ngi lay jàppale noo mën a def jàppale leen mooy la ëpp solo waaye bu fekkee ne ñi ngi indi ñeneen ñoo xam ne ni kenn mosu leen a xam ci terrain bi wala kenn mosu leen a gis ñu politique loolu day indi lu muy yàq lu bëree bëri la a def du ko def dana tax ñun ñu ne ci terrain bi force bi nu war a am duñ ko am dana tax it ñeneen ñii ñëw it duñ considéré euh, wàllu politique bi ba mën a jàppale président Macky Sall mais mais mais ma ne ma ne ré ma ne politique lépp gang la politique yëpp ñëpp dëkk boo dem kenn àndu ci kenn ñoom ñëpp ànduñu day def bu intérêt jotee boo xam ne bu mar a bokk la ñu ñëw ànd bokk ko man mii di wax ak yow euh, tey bi ñu defee Cheikh Abdou Bali tedd liste dama ko soutenir wàcc ci terrain bi jàppale ko ci pourtant bu dee ci wàllu politique du jiite mu ci politique munu munu munu ko nekk sax parce que li tax munu ko nekk bokkuñu euh, xamut lan mooy politique ci lu bari mais ñun xam nañ ko yàgg nañ ci dund kon loolu du ay gang moom ci boppam tey jii ku mel ni moom bu ñu ko defoon ministre wala directeur damay nangu na war na koo mën a nekk parce que li tax war na koo mën a nekk mais bu dee ci wàllu politique moom moom amul kenn koo xam ne nii tey war na maama jàpp ne mbokk nga mu nekk ci dëkk bi mel placé ka pour war a mën a jiite ci politique wàllu sëñ Modou kon ànd googu mbir mu ne bu ñu boolee ñu def ko def na ko ba bërki dem am na ay signature yoo xam ne dugal nañ ko euh, moom moo ko initié xalaat ko ñu dugal ko pour remercier président mais man la ma waxoon danaa ko remercier mais des na ci sama làmmiñ danaa wax li ma gëm la ma gëm nag mooy poste de responsabilité moom dañ koo war a am comme ni ko département yépp amee la ma wax nag euh, continuer di ko leeral mooy Sëriñ mii sax bu ñu ko dee topp ñun dafa am lu tax ñu di ko topp mooy yaakaar ko tey ak ëllëg ñu gis ne ci barkeem la ñuy dund kon président Macky Sall bu dee suñ xarit du suñ ko lëree ñu koy jàppale ci politique am na lu bëgg ci moom ngir mën cee jàppale askan wi ngir ba bañ cee bokkale waa Touba kon côté bu mel noonu moo tax ñuy wax ndax tey ci tey dana ruslu lool ku mel ne Moustapha Diakhaté jëg di plaider jëm ci Touba loolu gàcc la ci ñun parce que bi mu fi ñëwee am nu mu fi bëgg a doxale man maa taxaw na du fi am barki démb it ñu taxaw ci euh, awiti ñoom ak moom euh, TV7 daanaka émission ba nu ngu ta ñëw parce que xam na ne ñun xam na li ni wax ca bërki dem bi fi ñëwee li doon wax ak di ko def ak li muy wax xam na man ko mais kon tey gii ki tey bu demee di ñu plaider ak di wàññi ko di wax ne euh, dëkk ba war na leen a définir de considéré ñu leen jàpp leen man damay amaat gaaj kon président Macky Sall war ngaa geestu ñi nga xam ne ñoo nekk Touba war ngaa geestu ñi nga xam ne ñi nga lay jàppale ngir Touba parce que politique dafa am nu koy doxalee dafa am nu ko defee ca dem na ci ba nga xam ne dëkk bii di Touba sax bu fi ñëw ñun ñi ko fi jàppale sax duñ yëkkati ay téléphone woo ñu den dana fi ñëw heure sangam na ngeen def nii na ngeen def leneen beneen bi ci des may ma tuuti ma ñëw foofu beneen bi ci des euh, ci doxaleen wu mel noonu dem na ci bu ñëwee ba am ñëw ba e-, am sax toog ak ñun ga ca war pour waxtaanu ñun ca mboolem président yu fi jaar bu ma saa ñëw dañuy toog waxtaan ak seen i toog discuter ak ñoom weccante ak ñoom ay xalaat may leen accès ci seen ci seen ci boppam considéré leen loolu nit ñi di ko gis xam ne ñii kat li ñuy wax dëgg la ci ñoom ki kin àndal considéré na leen am na fu mu teg man nag sama xarit la fu mu taxaw fu nekk dana wane na sëñ Modou du Dolly sama xarit la loolu kooku côté bu mel noonu it fu fi ñëwee bu nu mel noonu amee dana taxaw jàkkaarloo ak man wane na sama xarit la loolu kooku xaritoo la mais ci collectif politique bi moom laay faral di wax kon côté boobu laa wax ne considération bi ni mu fi war a doxalee ba ci ñi nga xam ne ñoom lañ àndal muy alliés yi ñu war a ànd ñun toog ci moom wax ak moom ñoom ñëpp sax kenn du ci xalaat xam ban bis lay ñëw yooyu yëpp nag ci dëkk bu mën a jëm ci Sénégal bu foree dem dana wax ak responsable ya nee naa la ay ab guerre boo ci jëmee dana la jox ay jumtukaay yu tax nga dem ci déglu fi may waxee yow yow mii ci tey bi nga jëm see ci man mun lu joxutoon micro bii nga yor ak appareil bii nga doo ma mën a jël kon loolu juruñu ci ci perdre son ay ay responsabilité lan ñu joxut yow mii bi nga nekk Sénégal di ko yor bi ngay ñëw pour nga mën maa questionné dañ laa jox ab micro nga yor jox la ab caméra nga yor ko léegi nag politique bu fekkee ne considération boobu amu ci joxuñu la mooy yooyu mu am ci euh, considération boobu amu ci joxuñu leen ay nomination da ngeen koy gañeele fii ci dëkk bi nag moom li may wax rek kenn du fi suñu kilifa ci politique ah jàpp na ne tey bu doon manto ñun ñii ñoo ko war a mën a sol keneen ku man di doon it lu mën di def it leeral nit ñi ne ah ñun fan nekk mooy engagement président daal ku ñu ci woo dana la ci wuyu boo wooyee ci leneen nag loolu nekkuñu ci ku nag yéene na la nga am lu ne waaye ci wàll politique moom kenn nekku fi suñ kilifa ci kenn du fi ne kilifa ci dëkk bi kooku lu nu leeral la lu nuy wax la mu la doon lu leer nañ lépp loo gis ne tey def nañ ko mooy mention boobu ñu def jëmale ko ci président ñun ñëpp danañ ci ànd ne rafetlu nan maanaam euh, ab liggéeyam parce que moo ñu war ah donte suñu làmmiñ yi dañuy wax lii dëgg ah ku ñu ci woo rek ci lu mën di doon mën na la caa wuyu ci président waaye nag kenn nekkul suñ kilifa ci politique ci dëkk bi kenn jiituwuñu ci dëkk bi tey it jàpp naa ne bu fekk na manteau la bu nu war a sol dama koy répété waat yaakaar naa man Modou Bara Dolly maa ko war a sol kon nag na ma amoon ngor ñu teg fi Abdou Lahad Gaynde Fatma ma jàppale ko ci ab ca ma jiitu woon ko ci parti bi am na ñu ma ci jiitu waaye ma jiitu woon ko ci moom dàq ko politique gën koo xam politique gën koo yàgg ci politique gën a koo jël ay engagement jàpp naa ne tamit nit ñi war na noo xam ne kenn ku ne la nga man nga nangul ko ko wax ne ca dëgg-dëgg bu la ko doon jox sax nga ne sëñ Modou yaakaar naa mooy ki ko war a man ni ma manee ni ma manee tey bu ne woon ab directeur nga ab ministre ngi ni ma ne Abdou Lahad Gaynde wala wala wala Baragay wala wala keneen keneen kon man loolu laa gëm beneen bi ci des it politique du lu ñuy caaxaane du lu ñuy fowee fii ci dëkk bi dafa am ñun fi àndoon ak président Moustapha Cissé tey jii ci tey président Moustapha Cissé ñu dàq ko ci liñ wax ci parti bi ñoo ñu desaat fi ñooñay fi des nag nan leeral seen mbir ba xam ñi ngi avec Macky Sall wala ñi ngi avec président euh, Moustapha Cissé ca président Moustapha Cissé ma taxoon ñuy xeex wala ñuy moom taxoon ñuy xuloo ak nit ñi ak di leen yàq wax lu ne nan leeral seen bopp fu leen jëm bala ñuy taxaw ci biir parti bi wax naa ko waxante naa ko bala ñu jàkkaarloo benn mbir ci biir taabal ci parti bi ñoom nan leeral seen côté ban côté leen jëm ndax wax di dem rek amut ak continuer di def li ngay di def ak di wax ay wax jëmale ko ci président Macky Sall yu yu dul noonu ñun du toog di ko seetaan du nangu du luy nës nësal mbir politique kenn du ko nës nësal day leer ñi ngeeg moom wala nekk ñoo moom. loolu mu lu jot a leeral ndax comité discipline ba nga xam ne ñoo jëloon ay dogal président ànd ci ba léegi si waxut ne ñëwaat na ci parti bi. ah kon ñi ànd ak moom it nan leeral ñi ngi continuer ànd ak moom wala continuer ñu ànd ak moom li ma wax wax naa ko ñi nga xam ne ay responsable lañ di politique ñu bokk ñoom dëkk bi bala ñuy toog ci taabal di toog di jàkkaarloo ñooñu duñ toog ñun ci leeru ñu ban position lañ féete